mbég ma xamoon ci ma bamba ñibbisee dootu fi am daaru la nu gisee mbég ma xamoon ca bis bamba ñibbisee dootu fi am daaru la nu gisee man si anta njaay bisim ñibbeem ba lay bëgga ngir mbégam soppeem macha allah ñoo ngi sant waa waañ bi bu baax a baax suñ jëwriñ soxna ay Aïcha ñoo ngi koy ziar bu baax di ko ñaana yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram ak suñ sëriñ sëñ laat yal na fi yàgg te wér mbàkke bàlla ñu yàgg fee ñëw di leen fi fekk gone góor yaa ngi nii nag macha allah macha allah yal na leen yàlla lafal cat yal nañ yàgg a ñëw si bésu maam Cheikh Anta bi lu ñu mën ren bu déwénee yal nañ mën lu ko ëpp. Euh, di wax di fàttali rek ne ñi nga xam ne mooy asxaabul nii ki ni ma koy waxee ab daayira la boo nga xamante ni pas-pasam mooy lépp lu nga xamante ni warees na koo def ci kër sëñ bi daayira bi ñoo war a takkatoo laxasaa yu jóg taxaw temm ngir def ko. dip bañ ko sosee ba léegi itam ci loolu la dox fexe ba lépp képp ku fi ñëw danga lekk danga naan da nga am dalluwaay bu baax waaye. nit ki nit ñuy màggalee da ngay am màggal gu mucc ayib loolu mooy taxawaayu daayira bi moo waral ñu dar koy xaaj nag ci ay pàcc yu mucc ayib boo fi ñëwee am na ñoo xam ne ñoo lay dalal ñu ko wax accueillir waaye am na ñoo xamante ni ñoom ñooy taxawu màggal gi ak li ci li ci aju waaye am na ñoo xamante ni ñooy taxawu waañu ak ñi koy sëñ Ibrahima yi moo sama ginnaaw moo jiite ñooña loolu mooy asxaabu janna su asxaabul janna su ma bëggoon a tënk pàcc yooyu lañ koy def ci ci màggal gi ñii ñooy organiser ñii ñooy accueillir ñii ñoo nekk ci cuisine bi li des yëpp ay pàcc yu ñu leen di boole leen ñu leen di gonfale depuis bañ ko créé 2016 ba léegi nag si la ñuy dox wax dëgg yàlla at mu ñëw ñu ne mii moo dàq kon sant nañ bu baax waa SN xibaar ci teew gi nga xam ne teew ngeen ko. ñi nga fi gis ñëpp si kër gi nii ñoom ay ay ay ay ay dongaam lañ ay taalibam lañ kon loolu boo ñu si laajee dinañ sawar suñu bopp waaw man ko sëñ Abdoulaye Mbacke doon na koo xam ne maanaam ku bëgg nit la ku bëgg dan ku ku bëgg ku bëgg donga la ku bëgg bëgg ñëpp la te dafa wàcce boppam maanaam euh, ni donga yi waaw kon loolu ñu ngi koy sant di góorgóorlu ndaxte maanaam am sëriñ mu wàcce sa mu wàcce boppam ni loolu maanaam ak tawféex la te loolu ab soññe la si ñun. am naa beneen laaj ndaxte sëñ bi damay dama koy dégg léeg-léeg mu ne mhm. li ko gën a ñor ci daara bi du xaalis mhm. waaye taaliba yi xamante mhm. ak dem leen ci diggante daal dese naa leen sama bopp naa xam jubluwaay bu dëgg-dëgg lan waaw maanaam loolu sëñ bi li tax mu ko ah, si gàttal rek da nga gis taaliba mu nekk Ndakaaru gis taaliba bu nekk Touba gis bu nekk fii si Mbacké te kenn du ci xamante sa morom da nga gis taalibe bu jóg da nga gis benn ñaari taalibe yu bekk benn dëkk ñaar ñaari ñu dëkk Mbàkke gi mhm. ñëw bokk màggal ga ba mu jeex te kenn du xamante sa morom te loolu day nekk loo xam ne sëñ bi maanaam da ko gënal gënal sëñ bi mhm. sëñu li muy wax maanaam li koy gënal mhm. daayira bi am na solo lool te daayira sëñ Tuubaa moom moo ko digle pour luy pour loo xam ne day jàpp maanaam pour ñaari pour pour lépp mën a nekk benn waaye daayira bañ koy bañ koy lal xaalis taxul léegi sëñ bi dafa amoon yéene maanaam yéene joo xamante ni ka daayira bi buñ koy lal kenn ku si nekk sa morom la muy yëngatu sa morom xam ko hmm. yow boo dee moson la man may menuisier ñun ñaar buñ xamantee buñ buñ jëflantee loolu dina mën a oyof dina mën a jàppandal loolu moo taxoon sëñ bi ñu buñ ko buñ ko laajee danoo formé ab daayira mu jox turu asxaabul janna hmm. waaw sëñ Pap hmm. salaamaaleykum mbokki internet yi bàyyi xel seen xibaar point com ni ñu leen di leen ziar di leen bégee tey ñu ngi fii si màggalu maam si Anta Mbàkke borom gaawaan borom ñu fekk fi nag fii nga xam ne mooy kër Serigne Abdou Lahad Mbacké waa kër Serigne Moustapha Ceytu ñu fas yéene waxtaan ak ñoom rek si lenn si histoire màggal gi ak euh, Cheikh Serigne Cheikh Anta Mbacké borom gaawaan ak Serigne Moustapha Ceytu mi nga xam ni mooy euh, borom kër gi fii ñu fekk fi nag suñu jëwriñ ci di ko ziar bu baax ñu ngi lay ziar bu baax. waaw ñu ngi lay delloo ziar euh, Babacar Samb tur bi Babacar Samb la. deug la ñu ngi leen di dello ziar bi di contant ci ñew bi ngeen fi ñew euh fi ci kër seigne abdoulahat mbake mom seigne moussa mbacke ceytu euh, mom mam cheikh anta borom daru salam tay mo ñu doon ñewal rek ci kan moy cheikh anta mbake borom gawan ak istuwaram lo ñu ci do wax waaw cheikh anta mom mëne su la xam lepp xana kay liñ ci jota xam ak liñ ci xam ñu jëm ko wax ndax amna ci lo xam ni ni euh, tay bo ma saana gis mam cheikh anta da ngay def ni bur la loolu taxoon tamit nag benn bis mas naa nekk gaawaan moom maam Cheikh Anta war ay fas ànd ak uh, ay taalibeem ñu jëm dëkk bu ñuy wax càkkami Touré ba nu ñëwee ba ceytu kër maami sëñ bi toog ci pënd bu bëri wulee ci digg dëkk dëkk bi maamam moom ni maam masaa Saasum daal di génn daal ni waa pënd pënd bii pënd bii day uh, ki ki nga xam ne nii moo fi jaar bu fi jaaratee nee leen ko bu mu fi jaaraat fekk uh, ku ñu wax sëñ Morlo mom dafa joxone werdu xaadar mama samba sasum saasum ne ko bo demé ba gisatuma lèr go gis nang ca lèrlu bi nga xamé ni mam Cheikh Anta depp na nak mam Cheikh Anta ku dal la won ku tey la won ku tey la won ndax euh, li waral lolu moy bi mu deppé ñu wax ko ko dal dal di wacc nuyo mam samba sasum sa fon tek mom maam Samba Saasum nag daal di fàttaliku ni sëñ moor Loor kat joxoon na ko werdu xaadir te waxoon na ko ne ko am na leer guy ñëw saa yoo ma gisatul rek leer googu boo ko gisee na leer lu leerlu kon maam Samba Saasum daat ne kon leer googee ma maam moor doon wax kon maam Cheikh Anta mii la ca la jébbaloo ci moom yëkkati doom jox ko Faat Diop mu Samba mu am ci sëñ Moussa Ceytu ak soxna Daba sëñ Moussa ñu jox ko Codé Diop mu Matar. mu mu mu moor Diop moor Diop mu ko jur ak Samba Saasu mu jur seex Anta jóob mu créé IFAN bokk ndey ak baay moom ci sëñ Fallou ak kuñ bokkal ak sëñ Abdoulaat mii nga xam ni nag bu sëñ baayam ñëwaatoon duñ ko corriger ay magam yi mu bokkal sëñ Moussa Ceytu duñ ko corriger ndax daa jël léppam jënde ko ak taalibe liggéey jaamu yàlla rek lay def laajul kenn dara. lu mu am yéene na ko kër baayam la koy indi lu mu am ay mbokkam la koy jox lu mu am ñi ko yàlla booleel la koy jox kon moom ñu ngi koy ñaanal ni muy dunde màggal gi nag mooy ni sëriñ bi xalifa daaru salaam santaane rek moom ci ñoom ci ku xam waa kër sëñ Moussa Ceytu xam leen ci diine lislaam xam leen ci liggéey xam leen ci maandu xam leen ci ngor xam leen ci fulla wutiwun leen fenn ñoom na sëñ Moussa Ceytu gis nga bi nga xamee ni tubaab bi ci boppam nekkoon nan fi kolon yi te maam ante Anta jëloon xaalis bu bëree bëree bëree bëri jox ko Serigne Moussa Ceytu ak mu ànd ak Serigne Sam ngir ñu war a dem Égypte jàng fa science islamique gouverneur général bi nekkoon Ndakaaru dafa bind gouverneur général ba nekk France ni ko ah man de mosuma gisul bi gone yu ndaw ñu jël xaalis bu doy nii jox leen ngir ñuy jàngi. maam Cheikh Anta bi yàlla dogalee ñoom ñu jàngi ba 39 45 euh, guerre bi commencé ci leen ñibbisi waaye bi mu ñëwee moom mu Moussa Ceytu daa jël lépp rek jox ko maam Cheikh Anta borom Daaru di bàyyam ba pare nag doonu bëkk néegam nekk ak moom yére yi nga xam ne moom la sëñ bi jële woon Arabie Saoudite da koy sol di ko sol di ko sol ba yére yi xuteeku mu xar ba benn bis maam Cheikh Anta def walis wu rafet ak yére ñoo ni ko Moussa mu ne ko Mbacke mu ne ko damaa bëggoon kat lii nga koy barkeeloon na xam na ni moom yére yi muy sol nii yére yooyu baaxatul sëñ Moussa daal di koy jëlaat yére ya ubaatu walis wa ba mu rafet delloo ko sëñ bi ni ko dama bëgg nga ñaanal ma ba bu ma la noppee gis man koo amal sama bopp kon loolee ko su maam Cheikh Anta la mu waxoon maam Cheikh Anta rek dal na ko dal ak njabootam kon ñu ngi ñaanal ki nga xam ne mooy sëñ aas suñ borom yokk ay leeral sëñ maamun mi nga xam ne nii moom moo toogee toogaayu suñ Musaa ceytu yàlla bàyyi ko fi sàmm ko oyofal yen bi moom ak ay rakam sëñ ma sàmbaak sëñ fàllu sëñ abib ba ci ki ci gën a ndaw di sëñ abdulaat mii nga xam ne nii moom kër bayam ñepp dañ ko bëgg lool suñu borom moko def kon mbacké yàlla na may di wéy du gëdde du bodde kumu am demb am nako tay desul ginnaw ma sha allah kenn du ko yóbbaale bi mu mané jëf di jëf ba légui nak ma xam ko man lepp lu mu am ci teranga bok nako ak ay mbokam ak talibi kon señ bi dëkk digënté kokki ak ndam bok ak Sénégal gëp señ Moussa Ceytu nak liggéey rek liggéey jaamu yalla gis nga barki demb ma ngi tok ak sëñ bi ak magam sëñ fallu fekk dama seetaanoon ci internet toli yamu ya fofa debi ba ndax neena bayam dako won rek ne ko sëñ fallu mu ne ko mbake mu ne ko kay dem walo, ndax deg na ni suuf sa nangu sa kon euh, defena beuri le barkel le da gën daru salam nak wax deug yalla bi sëñ touba jugee ci géej gi ku ne yaakaaroon na ni fune fune lay jaar waaye daa ñëw rek ci rakkam ju gore ji di maam Cheikh Anta daal di ko yëkkati ñu kontaan ñoom ñaar ñëpp kon gis nga loolu mooy bis bii. bis boobu li may wax nag tamit mooy noone maam Cheikh Anta defoon defaloon Serigne Touba bu ko Serigne Abdou Lahad mi fekke woon dana def lu ëpp loolu. kon moom yàlla na may di wéy waaye nag gis nga bi nga xamee ni nii euh, naxu amu fi di grammaire araab Matar Ndumbe maama moo tuubloo saasum kodd kor Ndumbe am ci assa saasum ak binta saasum assa saasum dem ndaam am fa faalo faalo ñëw ci mudu faat moom sirixu kumba am fa ma jaxate faalo ak soxna buso faalo faalo moomu Suleymaan Mbaaco moo ko jur mudu sayib moo ko jur sayib xujukumba ko jur mook daaru xujukumba ak gaydeel xujukumba ak maam Jaañ ak faalo ak sayib ak anta seek ak siri ñoo bokk ndeeg baay léegi so mu am fa soxna buso faalo ma jaxate faalo ma jaxatee am wàccit moo am faat ma moom sëñ Cheikh Gaynde faat ma sëñ ñoom ñi réew mi ñu nekk di senegal ku fi sant Mbàkke te bokkutoo ak ñoom bu màggal gi jotee doom ci gan ñi foo mën a tukki dangay ngay am fitna kon sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen ñaanal tamit seen télévision bi euh, bokk ci télé yi gën a barkeel waaw bëggit nag ngeen ñaanal ko fii mu toog ndax moom liggéey jaamu yàlla dimbalee loolu la fi nekk xamul ku ko bañ xamul ku ko bëgg mbokk ak jàmbur moom la sëriñ bi yam pour moom lépp loo xam ni rek xew na ci kër sëñ Moussa Ceytu rek moom moo ko war a def kon Mbàkke yal na yàlla dëgëral la yal na yàlla jàppale la yal na yàlla bàyyi la fi waaye nag gis nga nii rek nga mën a mel ndax njaga isa sama am dañu woon isa jéy sama ndey ndaam la dëkk waaye fu ma fekk garmi danaa ko duma ci la toj ngëriñ lakk njekki naan taal ngewul lakk ngewul biraama sele taal yéeli lakk kàndal lakk fendal ni kàndal la leen wala ma rey leen na kër maamam la jiitu kër maam dammel ak teeñ rek li topp suñ kokki ba suñ daam bi suñ tubaa ñëwee kenn ëppale wu leen maam Cheikh Anta seen maam ndeysaan jërëjëf <laughs> macha allah jërëjëf yaakaar naa kàddu yooyu dégg ngeen ko matale na lépp ñëwaat na si histoire Serigne Moustapha Ceytu ak uh, Serigne Cheikh Anta Mbacké borom gaawaan ak jëmm ju tedd ji ñu fekk di Serigne Abdou lii dañ leen jëlaloon fii nga xam ne mooy Daaru dafay woy dafay continuer ba ko roog màggal jeex jox leen di daje